quelques minutes parce que xam nañ ñëpp sonn nañ donc euh, dégg ngeen li ñu leen fi expliqué yëpp defe naa leer na bu leerul peut-être mën ngeen poser quelques questions euh, comme suma confrère Larifou Saïd Larifou dafa wax en français dama bëggoon euh, wax rek ci olof pour gën a leeral ci droit dem gis ngeen dogal bi nga xam ne Cour suprême joxe nañ ko dégg ngeen la fa avocat général wax avocat général dafa wax nañu casser arrêt bi arrêt cour d'appel bi te ñun dañu développé démb juróom benn seize branches seize benn branche bu ci ne rek taxoon nañu war a casser arrêt boobu xam ni dañ ko jël dans une précipitation extraordinaire ndax yow mënuloo nit ki ñu convoqué ko ci affaire diffamation ñu ne entre deux particuliers muy ñëw nga wutal ko fu muy jaar jël ko dugal ko ci ay oto loolu doy la nga toj otoom gazé ko gaz boo xam ba léegi nee nañ posen la gaze ko moom ak avocat lépp ci kaay wuy si procès en diffamation boo xam ne bi bu la neexee sax nga bañ a dem ñu forcé la indi le tribunal sa médecin ñëw xool la foofu tribunal nga tëdd suñu confrère Siré euh, Clédor d'ailleurs dafa meloon ni ko gumba toog na ay fan du gis bu baax ndax gaz boobu ñu leen gazé moom ak euh, Guy Marius ak euh, donc loolu ci kaay wuy si tribunal ñu ñëw indi ay certificats médicaux ni juge bi certificats médico yi mooy wane ni Ousmane Sonko mënul taxaw à la barre renvoyel affaire bi ba mu mën a ñëw taxaw alors que code de procédure pénale dafa wax ni keroog confrère ma ko du ma ko waral wax ñu indi certificat médicaux yi juge bi ni du ko jël or certificat médicaux yi bu amee loi dafa wax ni tribunal dafa war a dem fekki nit ki feebar te mënta ñëw daf ko war a dem fekki fa mu ne bu dee prison la ne wala mu nekk hôpital dañ ko war a dem seeti ko foofu déglu ko dresser procès verbal boo xam dañ koy indi avocat mi plaidé ñu ne loolu du am atte ci saase deux mois de prison avec sursis et deux cent millions d'amende deux cent millions d'amende kenn masu ko dégg dommage sur kenn masu ko dégg bi Sénégal de Sénégal bi justice Sénégal bi amee ba léegi deux cent millions ci diffamation kenn masu ko dégg le ëpp ëpp ëpp vingt millions wala ay 10 millions am na magistrat bu ñu fi condamné woon sax boo xam ne bii boo xam ne dañu condamné journaliste ba 10 millions seen moroomu magistrat ñoom 200 millions. bes boobu 30 mars boobu Mame Mbaye Niang dafa génn di bàkku di fecc moo ak ay avocat am na sax benn avocat tubaab boo xam ne bi mu nga foon parce que ñun branco bi nga xam dafa war a ñëw dañ ko téye aéroport dàq ko mais bi ñu defee loolu Mame Mbaye Niang mi doon bàkku procureur moom même jour la def appel le 30 mars la ñu jugé deux mois avec sursis procureur def appel ci même jour bi kenn masul gis loolu ci diffamation entre deux particuliers parce que Mame Mbaye Niang dafa porter plainte en tant que particulier pas en tant que ministre te la ñuy wax ni moom la Ousmane ko wax am na ñu ci bind livre wax ci témoin yaa nga fa ki bind livre sax mañ nga fa waaw ñoom dañu bind wax ni xaalis bi fu mu jaar kii war man répondre ci affaire boobu nag wax na ci ba wax ni nañu poursuivre te booba ka ne of nag démb cour suprême ñi doon àtte ci la bokk alors Mame Mbaye Niang mi doon fecc ba 200 millions yi mënoon da koy séddale ci taalibe yeeg daara yeeg yu kenn xamul dès le lendemain mu def appel loolu kenn mas gis yow tey yaa ngi fecc ni gañe nga sant sénégalais yi sant justice ëllëg si nga def appel ba nga defee appel procureur ci gaawaayam xam ne TGV sax moo ko raw billaay kenn masu gis loo procureur def appel le 30 le même jour le 1er avril Mame Mbaye def appel le 12 c'est-à-dire environ 10 jours après 10 jours après procureur général yebal na huissier pour mu signifier appel bi Ousmane Sonko le 12 avril 12 avril pour l'audience du 17 avril kan moo mas a gis loolu procureur général maanaam dossier bi ci 10 jours yi rek jóge na tribunal yéeg cour d'appel ñu def rapport d'appel yéeg cour d'appel ñu enrôlé ko ba yónni huissier bi ba huissier bi servir kayit bi le 12 pour le 17 alors que délai d'appel yi sax jeexagul parce que Ousmane Sonko bi muy def appel c'était le 28 avril. délai d'appel yi jeexaguloon mu def appel ñoom le 17 ñu enrôlé dossier bi ba ba ñuy def seen arrêt dañu ni Ousmane Sonko aussi def na appel mais appel boobu ñoom statué wuñ ci et plus grave dañu wax ni Ousmane Sonko dafa teew assisté de 31 avocats ñun ñëpp ñu lim ñu ñi fa nekk ñi fa nekkul ñëpp nag Branco moom mu nga France parce que dàq nañ ko yóbbu nañ ko Larifou newu fa woon mais ñun ñëpp suñu tuur mi ngi ci arrêt bi ni ñun teewoon nañu ci audience bi pour assister suñu client alors que suñu client ñëwul ñun ñëwuñu loolu lan la loolu du faux faux boobu moo amoon cour d'appel ak yeneen jalgat yoo xam ket xamul nu mu toll malgré loolu démb cour suprême ni moom du casser arrêt bi te procureur général daf ko ni casser arrêt bi ñun ñu ne ko casser arrêt bi démontrer lépp noir sur blanc démontrer lépp que ni arrêt bi dañ ko war a casser ñoom ñu am seeni maqam seeni pexe ba ni arrêt boobu daal li ñu ciy dindi lenn dong la mooy contrainte par corps bi lañ ciy dindi li ci des yëpp baax waaye arrêt boobu c'est pas définitif démb dogal bi ñu dogal démb jàpp leen yéen journalistes yi yéen askan wi que ne loolu c'est pas définitif parce que ñun dañuy def rabat d'arrêt bu ñu ko signifier ñu def rabat d'arrêt donc arrêt boobu ñoom ñuy bàkkoo démb arrêt boobu c'est pas définitif et deuxièmement six mois yi nga xam ne moom la arrêt bi confirmé six mois yooyu terewul Ousmane Sonko mu nekk toujours candidat éligible ndax article L29 dafa wax ni supérieur à six mois supérieur à six mois avec sursis loolu leer na à six mois avec sursis or Ousmane Sonko c'est pas supérieur à six mois c'est six mois c'est six mois avec sursis léegi ñoom ñu langaamu ci article L30 parce que l trente dafa am fu ñu def euh, égal ou supérieur inférieur ou égal à six mois xam nga loolu contradiction la ci l or 30 boobu dafa renvoyé ci L29 parce que 30 boobu li ñu ko santoon rek mooy wax durée 5 ans durée kii bi ak euh, comme ni ñu ko expliqué point de départ bi ak durée bi donc loolu dafay wane ni Ousmane Sonko pexe bu nekk depuis quelques années pexe bu ne ndëgg sërëx bu nekk def nañ ko ko pour mu bañ a bokk ci élection yii élection yi nag yàllaa ko ci boolee parce que bu loon seeni pexe rek booba ba léegi kenn waxatul affaire Ousmane Sonko kenn waxatul candidature Ousmane Sonko kenn waxul éligibilité mais yàlla def na muy dossier Adji Sarr muy dossier euh, Mame Mbaye Niang bi ak beneen dossier bu ñu doon pexe yépp vol de portable vol de portable lañ ko jàppee dañ ko séquestré cinquante cinq jours après ñu ne vol de portable te pendant ces cinquante cinq jours là yi mu nekk këram police def na benn PV en date du 7 juillet benn procès verbal ni ñoom ñëw nañu kër Ousmane Sonko pour signifier ko te loolu ñu ngi ko wax devant le tribunal d'instance de Dakar bi muy attewaat après cassation ñu ne ñoom police dem nañu kër Ousmane Sonko le 7 juillet def fa benn panneau d'affichage ci buntu foo ñëw dugal ko ci kii mais yàlla def lépp feeñ parce que ñoom yàllaa leen di feeñal yàlla moo lu lu ñu def rek pexe bu ñu def lu ñu lal rek yàlla feeñal ko te bu koy feeñal daf leen di weeraale boole ci donc il faut arrêter te kii lenn rek moo tax ñu bañ mu bokk man dama ni takk ndeeram sax dañ ko ragal man gëm naa ni bu ñuy gént guddi dañuy def cauchemar di gis Ousmane Sonko mais nañ gëm yàlla nañu gëm yàlla nañu gëm yàlla te arrêté parce que bu yàlla ne day bokk day bokk bu yàlla ne mooy nekk président ëllëg moo koy nekk gis nañ ba tàyyi ku ñu jàpp ci kaso bi mu xëy gagné dem nekk président dem palais mais li ñuy def yépp di nëxal xelu nit ñi bëgg leen décourager ba ci tey li ñu def tey lan moo ko gën a grave yow ñu ne yow commission bi nga xam ne ñoom ñooy vérifier kii commission boobu ñu ne commission bi bala muy ubbi sa pli foog sa mandataire teew mandataire bi bi mu ñëwee tey ubbiwuñu pli président moo toog kii présider commission bi xam ne waa conseil ñu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ki nga xam ne moom mooy président wu conseil constitutionnel dal di wax ne wax maître Ciré dox li ni ko seen dossier duñ ko xool parce que dafa am lu ci manqué laaj ko lan moo ci manqué mu ne ko dinañ la ko wax dinañ la ko notifier kooku ni ko mais dañu convoqué ñëpp pour ubbi seen dossier ci seen kanam man dama bëgg ngeen ubbi suma suñu dossier suma kanam ñu ne ko daal am li ñu la war a wax daal danañ la ko wax jógal dem woo gendarme yi ñu ñëw génne ko par force ci lu ñaaw lu ñaaw loo xam ni kenn xaaru koon ci conseil constitutionnel ak président loolu nag dafay annoncé lii ñëw après en tout cas ñoom pexe yu ñu mën yëpp yëpp yëpp yëpp def pour Ousmane Sonko bañ a bokk ñu ngi koy def te pareeguñu yàlla nag ñun dañu làq Ousmane Sonko ci ginnaaw yi yàlla lu ñu mën loo xam ne lii yàlla àndu ci nañ ko def te ñun gëm nañ ni ba ñu yàggee pexe ba léegi segam mënuñu woon ci moom dara ba léegi gaw ma ni dinañ ci mën dara ci temps yi di ñëw en tout cas loolu la ñu leeral. ci seen kanam euh, di wax ne euh, recours bi danañ ko déposer euh, mandataire bi bu jotee maanaam maître Ciré Clédor Ly bu jotee notification yi nga xam ne moo tax ñu ne du ñu xool dossier bi danañu def recours devant la cour de conseil constitutionnel loolu daal lañ bëgg ngeen jàpp xam ne candidature Ousmane ko ba léegi c'est valable ñoom mënuñ ci dara bu fekkoon ni ñoom dañ ci bëgg dara dañuy jël arrêt bii arrêt bii lañuy jël dem saisir euh, daaf bu ko defee ñoom bu ñu jëlee décision dindi ko waat ci liste bi parce que mu ngi ci liste bi dindi ko waat ci list bi dañuy def procédure maanaam dañ ko koy notifier bu ñu ko ko notifier ba pare moom dafay am délai cinq jours pour attaqué devant le tribunal parce que tribunal mooy wax comme ni mu waxee rek tribunal Ziguinchor tribunalu Dakar ni ñu waxee bu boobaan noonu la ñuy defaat te ñoom xam nañ ni amuñu temps boobu moo tax pexe yi ñuy def ñu di ko def mais gëm nañ ni pexe yi du antu comme yeneen pexe yi ni mu ni mu kiyee ni mu bañee antu donc loolu lañ leen di wax vraiment di leen sant bu baax di wax askanu Sénégal ñu xam ni dëgg mooy mujj. te. Euh, loo xam ne du dëgg yàlla du ko seetaan te yàlla seetaanul bu doon seetaan du ñu agsi fii gëm nañ ni yàlla dina àtte nit ñi ak Ousmane Sonko parce que liñ ko teg metti na te yàgg na te ba léegi mënaluñ ko dara donc dañu gëm ne rek loolu. on a trop parlé. donc léegi ñu ngi leen di. Euh, s'il y a des questions déglu si question yi ngeen euh, ñu bëgg a poser. préparez-vous à répondre. Bon, réaction de sérénité, d'abord, comme d'habitude, sa sérénité devant cette décision. Mais ce qu'il nous a dit, c'est de dire aux Sénégalais qu'il est toujours candidat parce qu'il est toujours sur la liste, comme l'a ordonné la décision euh, du juge du tribunal d'instance et de Gingachor et de Dakar. Donc il est toujours sur cette liste Maintenant, s'ils veulent l'enlever à nouveau de la liste, ils n'ont qu'à faire la procédure et lui notifier cela pour qu'il puisse en tirer les conséquences. Mais il est optimiste et il est serein, ça il faut le savoir. Il est d'une sérénité extraordinaire et il est confiant. Maintenant, le peuple, le peuple est là, le peuple apprécie. Et on verra ce, que, ce qui va être décidé Pour euh, compléter ce que mon excellent confrères et grands frères Massokhna vient de dire. Tout à l'heure, nous sommes allés voir le président Ousmane Sonko. On était Maître Larifou, Massokhna et Maître Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Mais c'est pour vous dire que